lépp di Sénégal nga judd ñu la këyit ne la këyit bi mooy sa mandarga mooy sa identité nga dem benn bis ñëwaat fa dellu si ne dama dama cee bëgg copie ñoo la këyit bii amatoo ko ñu utal la beneen këyit yëgoo tino ñu di ko xeex ñu ne loolu kenn du ko xeex ci réew mi président du ci wax premier ministre du ci wax ministre de l'intérieur du ci wax vraiment imam non ñoom dañ ñoom bu ñoom buñ ñoom ñoom dañ ciy wax par force non loolu loolu kaaraange réew mi la loolu kaaraange Bassirou Diomaye fay mënu cee ñàkk bañ a wax Jean Baptiste Diouf ministre de l'intérieur mënu cee ñàkk bañoo a wax daañu ci wax ci nii wala ci naa ndax loolu non attends loolu mooy loolu loolu ñàkk cee wax mooy yow doo patriote ñàkk cee wax mooy bëggoo Sénégal ñàkk cee wax mooy jaay Sénégal mooy jaay Sénégal daañu ci wax par force daañu ci wax merci imam te boo waxee ñu naan da ngaa raciste da ngaa soxor bon. non parce que xëy na ni ngeen di waxee la ñi leen di tax da ngeen raciste. dengan da ngeen leni da ngeen dimbeli i da ngeen leen i da ngeen leen dimbali yéen yéen leen jox bant bi ñu leen i dumaa yéen yéen ko jox parce que angle bi ngeen di waxee wax ji la parce que yéen loolu su ngeen koy wax da ngeen di singali benn xeet léegi bu ngeen singalee benn xeet nag bopp gi nag la te affaire bi du affaire Guinée yi rek la attention du Guinée yi ñoo ko def Nigérian dañ koy def ah? waaw imam xoola imam singali wuñu benn xeet de xam nga ah. gars dañoo jóg imam tey gars yi dañoo ah. jóg ne dañoo bëgg a régulariser réew mi étranger yëpp lañu waxal mais benn xeet mais benn xeet moo jóg di saaga sénégalais lu tax xeet yi bëri nañ fi maliens yi bëri ah, nañ fi guinéen euh, fi mais kenn waxul guinéen yi ñooñu ñu contrecarré léegi nag lii ma wax nii am na ay gambiens yu koy def am na ay maliens yu koy def am na beaucoup de mauritaniens yu koy def ay mauritaniens ñëw jënd ay kayit Sénégal am ay kayit am na aussi ay guinéens yu koy def Guinée Bissau comme Guinée Conakry am na ay nigériens yu koy def ay ghanéens ñu baree koy def waaye nag xëy na guinéens yi Guinée Conakry yi dañ dañ cee ëpp xay na ñoom ñoo ci ëpp mais du ñoom rek léegi nag soo koy traité doo ko traité rek ci benn xeet da nga koy traité ci globalement problème bi nga jël teg ko ci comptable ji su boobaa ñoom ñi naan da ngeen ñuy xeex da ngeen ñi saaga ñoom dañoo bëgg yàq seen xeex moo tax yéen xeex bi ni ngeen koy xeexee il faut ngeen xoolaat ko parce que ci seen xeex bëgg yàq xeex bi ci naka da ngeen a da ngeen a xénophobe yeneen ay panafricain bëggu leen ñeneen ñi déedéet man bañu ma kenn ñun ñëpp ay panafricain lañu guinéen yi suñu ay mbokk lañu gambien yi suñu ay mbokk lañu mauritanien yi suñu ay mbokk lañu ñun ñëpp sénégalais yi fa nekk ñëpp waaw mais nag mbokk gi tax taxul nag ñu ubbi frontière yi yàmba lañ ma jël sa këyit jox sama rak nga jël sa këyitu rak jox keneen mu jaxasoo déedéet loolu nanguwuñ ko de lu ci nekk na nekk place am ku ku ci nek nekk sa place gambien bi gambien la sénégalais bi sénégalais la guinéen bi guinéen la ba ke rek ñuy tabax afrique bo xamné sénégal do amati gambi do am mali do am ñun ñëpp ñu né africain lañu mais loolu amaguñ ko loolu dañ koy wax ci labbi nekku ñoo fi nekk man ma am carte sénégalaise bo démé malien malien bi carte mali la yor maag mom suñu carte yi bokkul ñeen bëgg na ben lañu nañu bayyi frontière fu waay neex fanaan ak nigérien yi loolu anarchie la ci ànduma mais imam est-ce que yaakaaroon ni ak imam. Hmm? est-ce que yaakaaroon ni à quatre-vingts que gouvernement bi ñooy problème parce que ñoom ils sont partout ni ngi Côte d'Ivoire ni Angola ni ngi Gabon mais foofu noonu dañuy respecter les règles et les normes foofu dañoo nekk ay nit normal léegi pourquoi lépp lu ñuy euh, pourquoi ñoom comportement bi ñu am ko fii ci Sénégal te amuñu ko c'est ça le problème. Angola Gabon fa am titre de séjour par force si fa veux plus de trois mois il faut régulariser un titre de séjour fay Sénégal ngay ñëw quatre mois un titre de séjour à dara fu la faut fu la kenn du la wax dara de dakk te de par force ku Sénégal CEDEAO ne ci espace CEDEAO bi am nga sañ-sañu dem ak ci réew yi nekk ci biir CEDEAO bi am nga sañ-sañ dem fu la neex dikk fu la neex yow ci sa jëmm ak sa alal mën nga koo doxal ci biir CEDEAO bi waaye sañ-sañu jóg dem beeg dikk bi loolu moom CEDEAO moo la ko garanti waaye nag nag dëkk dëkk bi dem ak dikk xam nga bokkul ak dikk xam nga dem ak dikk bokkul ak dëkk CEDEAO nee na man maa leen garanti dem bi ak dikk bi libre circulation des personnes et des bien dem ak dik bi mom ma ko garanti waye nak dal dekk tok dekk tok ne faax tok loolu mom état bu ki nek yaay taxawal politique ci sa rew noo koy defee réew yi Afrique yeb dañu d'accord ñom ñep Afrique de l'Ouest yeb ba Afrique centrale bi nga tuddu ne ñom dañu am politique de séjour interne bo xam ne yoonu CEDEAO yawo nek dem am nga sañ-sañu dik yak sa alal waye nak na ngay dëkkee ci rew ci manti doon condition yi réew moom mais ngay dem bëgg faa toog moo lay wax noo fay dëkkee ñun nag Sénégal dañoo am ay loi yu ne réewum Sénégal gan gu fi jóge bitim réew ñëw dugg fi mënoo fee toog lu ëpp ñetti weer si jours mënta weesu ñetti weer bu bëggee weesu ñetti weer il faut nga dem ministre de l'intérieur yëglu wax loo fi def lan mooy sa métier ndax dangay jàng dangay liggéey dangay faju wala loo fi def benn ñaareel bi wax fan nga dëkk ndax am nga foo dëkk ñetteel bi mooy ndax am nga ay moyen pour mën fee dëkk maanaam fay courant jënd lekk am nga xaalis boo xam ne mën nga fee dëkk yooyu yëpp muy condition yoo xam ne renseignement yoo war a jébbal ministère de l'intérieur mu saytu ko xool ko ba gis ne yow mii kat buñ la fi bàyyee doo toj banque yi doo fi indi feebar doo sàcc doo agressé am nga xaalis am nga dëkkuwaay am nga xam-xam wala dañu ko ne la bàyyi naa nga toog fii ci Sénégal at mu nekk nag da nga koy renouveler loolu yoonu CEDEAO nekku ci loolu moo am Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire espace CEDEAO la bokk ku fa dem da ngay am séjour di fay loolu moo am Gabon au niveau de la CEMAC moo am ci Angola moo am fépp ñun Sénégal ñu ne ñun géttu bëy lañ bëgg a def réew mi réew mi réewum géttu bëy la fu jot gu fu bëy xam rek yàlla sàkket dajji sàkket mu nekk àll boo xam ne dañ koy boyal ñu ne ñun ay nit lañu loolu du dëkkuwaayu nit loolu dëkkuwaayu bàyyi ma la te duñ ko nangu dañ koy xeex te kenn duñu jàngal xeex nag man nañoo xeex de xam nañ ñu ñuy dañoo wéer jaas yi rek ak cocktail molotov yi dañ koo wéer kenn sànniwu ko man nañoo xeex te dañ koy xeex dañoo xeex pour ah woy day leer de des na cocktail laay defaraat naa yu bari cocktail yi kay dañ ko renforcer fi mu toll nii danga ko doon bëgg a jaay ñu na ma ëpp naa jaay cocktail kenn du ko jaay dégg de kon kon daañu dem ci politique boo xam ne daañu identifier ñi nekk ci réew mi ñëpp régulièrement ñi fi nekk régulièrement di liggéey wala ñuy jàng moyen moyen pour dund ñooñu am nañu sañ-sañu nekk ci réew mi kenn waru leen a génne réew mi ndax doomi réew mi ñu ngi ci biti nekk ci ay réew di fa fay yii may wax kon ku ku matal lii mën ngaa toog ci réew mi dàquñu kenn waaye ñëw ci réew mi di ab sàmba booyee di fanaan ci ay boutique gi di fanaan ci ay oto yuy tàkk dégg nga maam di dajee ko sàcc amu këyit kenn xamul la ngay trafiqué loolu du kaaraange doomi réew mi du kaaraange réew mi du sakk ci réew mi loolu dañ koy xeex amul sécurité. di rey di rey rey crime yi gën a garaaw yooyu ñoo koy def. waaw parce que parce que mënu waaw ñoom ñooy rey. parce que bu ñu duggee Sénégal agressé rey mënu leen a jàpp ndax dañuy am double nga am réew loolu loolu am dugg ci réew mi ñu xam kuy génn ñu xam ci ay kayit ku fi dëkk toog ñu xam ci ay kayit réew yi civilisé réew yi ay nit di juddoo di fa màggee muy réewu ay nit lii ma wax moo fa am bu fekkee Sénégal nag ay nit amuñu fi ñu wax ñu ko

bu e trois mois yi weesoo bu fekkee ressortissant de la CEDEAO nga may nañ la nga séjourné ba trois mois même bu dee étranger sax boo ñëwee mën nga fay toog ba trois mois mais après trois mois moom il faut nga régulariser wu séjour wala nga génn dëkk loolu moom yoonu réew mi moo ko wax moo jiitu Sonko jiitu Diomaye jiitu Jean Baptiste loolu bañ koy voté ci loi yi booba ñoom Sonko est-ce que judd nañu loolu yàgg na fi loolu yàgg la loolu wax ne nañ ko appliquer néewuñu président Ousmane Sonko lu waay ñoom ñoo ko war a ñoom ñoo ko war a foofu laa doon daanele fi may daanele mooy ñoom waxuñu leen ñu tëgg ay loi yu bees yu dàq kenn dañ leen wax ñu appliquer loi yi te loolu Sonko moo ñu ko jàngal ak Jomaay ñoom ñoo ne jub jubal jubbanti li fi nekk ay loi nañ ko teg ci yoon doxal ko dañ leen di ne na leen loi yi nekk ci réew mi nañ ko appliquer nañ ko doxal li ñu bëgg ñun mi ngi ci texte yi prévoir dañ ko wata nañ ko ay ati at nañ ko doxal loolu képp la laaj laaj ñu leen leen nit ñi am kaaraange réew mi band yi nekk ci réew mi agression yeeg prostitution bi nekk ci réew mi étranger yi dugg ci réew mi di cagatu indi feebar yu bon sida ki di sàcc suñu këyit yi réew mi amul kaaraange doomi sénégalais yëpp rek doomu virusu sida bi hépatite B bi mhm. ñu indi fi ay feebar yu bon jóge ci seen dëkk yi dugg ci réew mi ndax réew mi ak sennal la foo bunt mu mel ne réew mi amul ay nit mu mel ne réew mi amul ay responsable mu mel ne réew mi amul ay kilifa mu mel ne réew mi dañ koo boyal dégg maam ku waay

ñëw di yalwaan ci mbedd yi réew mi moo amul autorité moo tax ma ne réew mi ki koy defar mooy ku am fit ku amul fit doo ko defar li ñuy wax yëpp baax na de diw lii la diw laa mais gis nga réew mi ku amul fit doo ko soppi dafa bari lu ñu fi war a soppi te fit moo koy soppi amul layam layam amul naxante li nekk ci réew mi te tegul ci yoon dafa bari waaye nag lum ci manti doon nañu ko mënoo xëy def lépp. benn bu yàggee daa ngi defar lu bari waaye loolu am naa yaakaar ne ñii ñu fi teg ñoom ñii ñu bees incha allahu ñoom xam naa lu ci lu ma ci xam xam nañ ko ci wala ñu xam ci lu raw li ma ci xam xëy na dafa di liñ fi fekk. yaa ngi doon wax am na imam sànq yaa ngi doon wax am na ay priorité mais lii tamit mhm. c'est urgent de. lii moom ah c'est très urgent actuellement. problème bi xam nga imam problème bi mooy lan. waaw dañuy dañuy man su soo moytuwul. Euh, nit ñi buñ euh, autorités yi buñ ci waxul man je vois dama jàpp ni que sénégalais yi dinañ wàccal seen bopp sur le terrain xeexal seen bopp indi fa problème indi fi indi fi indi fi xeex entre les étrangers man loolu gëm naa ko. mais loolu waaw mais loolu xam parce que ni ma la gisee sénégalais nii dañuy dañuy wàcc. maam dañuy wàcc di vidéo poli di leen ndara yi di leen sàng di wàcc seen tax il faut il faut état bi jóg si de imam loolu wax naa ko posté naa ko bind naa ko wax naa ci. xam nga patriotisme ak nationalisme ñoo bokk benn ndey patriotisme ak nationalisme ñoo bokk benn ndey foo fekk patriotisme rek da nga fa fekk nationalisme foo fekk nationalisme da nga fa fekk patriotisme moo tax teel naa signalé ca teel wax ko président Diomaye wax ko premier ministre Ousmane Sonko ak waa Pastef yëpp ak gouvernement bi

nit bale mu ne naam dafay ne mënoo naan yow a panafricain nga ab africain nga te yow nekkoo sénégalais bala ngaa nekk africain nekk sénégalais sa nekk sénégal dafa war a nga nekk sénégalais mooy nationalisme il faut aussi nga leer actuellement euh, affaire de panafricanisme ñun africain dañ ko war a tegee de coté ku nekk defar liggéey réewam ba pare après ñu dajaloo loolu la leen Afrique loolu laay wax ci plateau panafricain yi may dem fekk ñu fay xas Diomaye ak Sonko may dal ci seen kaw di leen défendre la ma leen di wax mooy ñun panafricanisme bi ñuy xeex ànd ceeg Ousmane Sonko ak Diomaye ñun panafricanisme boobu c'est un panafricanisme subsidiaire maanaam panafricanisme secondaire la combat boobu ñun suñu c'est combat secondaire combat au panafrique nous sommes priorité une sénégalais ñun suñu priorité mooy tabax sénégal d'abord ba sénégal nek sénégal ba nek réew moo dana jak jak bu toll ne ko dem fa ñuy adis ji Addis Abeba Union africaine pour bëgg a tabax Afrique ñun Sénégal bu ñuy dem ñu mëna yabu yabu moy manam ñu mëna jël ay bagage am lu dañ ko yobbu ñun kat Sénégal ñun li lañu indi Afrique gi bëgg tabax su Mali ñëwee Niger ñëw Éthiopie ñëw Afrique Sud ñëw Angola Gabon kenn ku nekk ñëw kenn ku nekk dañuy ubbi sa gaal na la yow loo indi dañoo bëgg a booloo na ku nekk ubbi gaalam ñu xool kenn ku ci nekk sa gaal lu ci nekk ñun suñu gaal di Sénégal suñu gaal dañ ko war a tabax ba yépp suñu gaal gaal goo xam ne bu ñu ko yóbboo ca ndaje ma bu ëllëgee pour tabax Afrique ñu ne ñun lii mooy suñu contribution suñu participation ñun kat suñum réew lii la am ak lii ak lii ak lii lii la ñàkk tabax nañ ko ba am nañu lii ak lii lii kat jàpp nañ ne bu ñu ko indee mën naa amul njëriñ ñu am ñun ñu am lu ñu indi waaw léegi ñu bëgg fee bàyyi tabax Sénégal di wax ay waxu panafricanisme Afrique gu existé wul Afrique n'existe que de par la frontière Afrique yi ñu coono ku nekk de wax naa leen ko ñoom ñag yi ma leen Afrique yi ngeen wax amul Afrique frontière la te tubaab yee ko rëdd. tubaab yi ñoo ko rëdd ne lii mooy Afrique bu ko tubaab yi deful woon ñun mënuñu ko ndax ñun dañuy reyante ba jeex tubaab yee ko rëdd ne Afrique fi tàmbali fi la yem tubaab yee ko ñun kott ñu ndax ñun bi avant tubaab bi ñoo ñoo ngi suñu biir suñu royaume yeeg suñu ki di rayen ñoo ngi suñu biir kon kon afrique bu amé tay bëgg-bëgg la xalaat la ñun ñëpp ñu di ci xex pour jëmmal ko waaye waaye nak bo bëggee jëmmal lo xamne nekkul bëgg sagane lu nekk moy sénégal li nekk moy mali li nekk moy gabon li nekk moy angola loolu moom lu nekk la juridiquement parce que état bu taxaw la loolu boo ko bëggee suufeel ci bëgg jëmmal loo xam ne nekkagul looy sàkku la mais li nga bëgg du sotti maanaam carte gi kenn mënu ko dëpp Ousmane Sonko ak Diomaye ak Pastef ak ñëpp ci yam mënuñu naan ay panafricanis lañu ba loolu war a jur ñu war a sàggene suñu nationalisme ak suñu patriotisme au niveau local au niveau du Sénégal nit lu muy woote da koy nuru bala nga ne naam ca Afrique da nga naan naam ci Sénégal waaye mënoo jéggi Sénégal di jëggaani loo xam ne nekkagul loolu man ànduma ci tama loolu xeexuma ko panafricain pur jus la waaye sénégalais laa d'abord sénégalais pur sang laa d'abord gëm Sénégal d'abord ñu war a tabax Sénégal tabax boo xam ne dina ñoŋ ñoŋ boo xam ne bu ëllëg bu ñuy dem ca ndaje ma pour tabax Afrique ñu mën a am lu ñu teg ci ko taabal ji lu leer naññ naññ naññ naññ ci loolu lay xëy man ci loolu lay dox de

xëy na mën na nañoo wuute ci ni ñu koy defee parce que léegi-léegi am ñu wax ñoom ñi ngeen di xeex génn dangeen ngeen ñoo bañ da ngeen raciste kërë kërë léegi bu ñu dugalee foofu débat bi am na ñoo xam ne dañuy rasu ko mel ne Ousmane Sonko day rasu ak Diomaye duñ ci dugg parce bëgguñu ko leen jam ci loolu. voilà mais nag débat bi du loolu loolu ñooñu dañuy yàq suñu xeex xeex bi ñuy xeex mooy bañuñu kenn dàquñu kenn génnewuñu kenn ku dul koo xam ne teguwoo ci yoon yoon wi nekk ci réew mi lañ bëgg Diomaye ak Sonko ak euh, ministre de l'intérieur appliqué ko du du ñu ñu voté de voté nañ ko ba noppi mi ngi fi ay ati at ati ati at ñu bàyyi ko mu tëdd nelaw réew mi ñu def ko ak sennal fu waaye jóg jaar bëtt dugg génn dem réew maa ngi yàqu jikko yaa ngi yàqu feebar yu bon yaa ngi jóg réew mi ñu ngi koy sàcc di ko jaay di ko jox ay nit fi may daanelee nag mooy këyit yooyu lenn li ñenn voilà imam imam tontoo ci sama question bi de yéen tamit bu fekkee ne am ngeen question Kaylor Rama Jama après mu ngeen mën ngeen ko posé balaa moo kii question mhm. waaw léegi su ma paree rek nga posé ko question imam ma ne yéen da ngeen maa bëgg a sax sax de ii tey ma dee de seen question yi sax sax imam dañ la soxla parce que dañ la soxla ah, dañ la soxla yàlla yàlla la fi indi ah, yàlla la ah. fi indi pël pël ginnaaw ba ma nuyoo imaam ah. waaw mais waaw mais waaw nañu. Ah, ah, nag parce que gars yi déglu bi day métti tamit ñu mos. xam la <laughs> moo tax ma si kaw. pël may ma lu ma wax lu tax mais tey sama yëg si kaw mooy. déglu la jàng si yow looloo ma fi bàyyi. est-ce que waaw Kaylo yàlla Kaylo xaaral Kaylo xaaral Kaylo ma posé ko benn question bu ma amal important tontu woo man dama ne tontu woo ma ci ba léegi de dama ne voilà léegi dama ne am na am na ay Guinée yu bëri tey am na li nga xamante ne mooy nationalité sénégalaise alors que duñu ay sénégalais dañ ko am soit dañ ko par fraude soit dañ leen ko jaay wala soit illégalement lañ ko amee léegi tey man ma bëggoon xam bu ñu demee ba di régulariser suñu réew parce que su ay ay doom yu bëri dañoo sàkk seen i ay papiers est ce que ñun mun nañ leen restituer li nga xamante ne mooy seen nationalité te nag mun nañ récupérer képp koo xamante ne yor nga nationalité sénégalais te non sénégalais ndax mun nañ ko récupérer suñu kayitu doom yëpp yu réer ndax mun nañ ko récupérer waaw léegi pël yow yow miy live di ci wax tout le temps ànd ñoom xam naa xam nga ci ñu bari dama lay yóbbante ci ñom waaye tamit nga taxaw ci ngeen fexé ba ñu ngeen di organiser woo def benn courriel out ay avocat def ay plainte collective plainte collective amna frère bo xam waxna ko fi dina ko bolé dina ko dina fexé ba am seen numéro ma bolé ko ngeen bolé ko ñi nga xam ñepp ay victime lañu ci seen keuyit yu ñu jaay sàcc ko jaay ko jaay ko ay nit ay étrangers ñom ñepp nañu organiser wu en collectif les collectifs bu mag ut ay avocat ñu fay avocat yi ñu porte plainte auprès du procureur de la république Ibrahima Ndoye bi ñuy soog nome nommé bu soobee yàlla lépp dina leer def ay enquête daañu jàpp ñi jaay kayit yi daañu nangu ñi xam ne ñoom ñëpp seen ay këyit tegul ci yoon fraude la lii il faut une plainte collective au niveau national dans toutes les mairies ñu def ay enquêtes yoo xam ne procureur dana ci dox man dinaa ci dox ñun ñëpp ñu wax ci réew mi yëpp yëngu ñu yërëb ko ñi nga xam ne këyitu jàmbur yi ñu yor këyitu sénégalais yi ñu nangu ko tëj leen ci kaso yi bu seen peine yeexee ñu génn leen réew mi interdire leen de séjour au Sénégal définitivement doo dootu ñu fi dugati lii moom laa lay yónni ni ci ñi nga xam ne ñooy xeex xeex bi ñu bañ a tudd kenn benn xeet ak benn pays waaye ñu wax ne képp koo xam na jël nga kër ñooy jënd këyitu pël ay sénégalais yu juddoo ci réew mi ci papa ci yaay dem demander visa yu xóota xóota xóota xóot ba enquête bi yóbbu na ma ci nit ñi nga xam ne ñoo nekk daaf direction de l'automatisation di fichiers nekkal leen fa ñu leen di jox xaalis ñu leen di dugalal ay këyitu yoo xam ne ay këyitu jàmbur la ñuy jël di ci ut ay carte di ko jox ay étranger ñu man di voter ñu leen di affecté jour élection yi leen yóbbu ci ay lieu de vote liñ tuddee

macha allah imam tontu nga ci sama question léegi bàyyi ma ñëw kayloon ñëwal kayloon ñëwal mën nga tijji sa micro imam yow moom dañ lay dañ ah, micro. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di kontaan loolu si imam man professeur laa xay wooye parce que damay jàng si moom lu baree bëri. voilà imaam moom imaam imaam rek. waaw imaam waaw imaam imaam kon pël. amoon naa amoon naa amoon naa question pour moom nag. parce que man waxtaan ak benn mag mu xamal ma ni Senghor si biir constitution bi. dogaloon na si sax ku nekkul ku nekkul ku sa maam ku say maam bokk nekkul nekkul Sénégalais yow mënoo fi nekk ya, président. te dañu gis élection yi nii passé eh. Amadou Ba ñenn ñi nee nañ maam ji xam nga papa ji ya, ay parents am sax buñ ay sénégalais. te gis nañ eh. ko mu présenté wu comme candidat ma doon affaire boobu noonu nag sama dut sama sama bopp quoi ma ne woon ah ku mel ni nah, imam xanaa war na si mën a war na ma si mën a indil ay leeral quoi imam question boobu daal laa amoon. la constitution bi les mots wax il faut être sénégalais il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise alors les sax suma juum Ablaye Wade moo ko ci constitution 2001 bi Senghor défaut ko ci woon pour que je a sénégalais que candidat il faut que nekk candidat mooy njëkk nekk président parce que pour nga nekk président il faut nga nekk candidat d'abord donc chaque candidature ba la ñu pour nga mën candidat ci élection présidentielle pour jiite Sénégal il faut que nga nekk koo xam ne nationalité sénégalaise dong ngay am doo am beneen te nationalité sénégalaise lan moo koy maye nationalité sénégalaise li koy maye mooy ci sa baay nga ko daan jële ba bu yàggul lañu may jigéenu sénégalais yi sax léegi bu ñu amee doom seen doom yi mën a am nationalité sénégalaise ci seen yaay waaye yaay yi bu yàggul lañu ko am ci nguru mag Sall gi lañ ko am waaye bu bu jiitu loolu ci sa papa rek nga ko mës a mën a amee kon sa papa mooy nekk sénégalais jur la nga mën a nekk sénégalais waaye léegi sa papa ak sa yaay kum ci man manti doon bu la juree nekk sénégalais mën ngaa jël nationalité sénégalaise boobu ci sa papa wala ci sa yaay kon loolu moo lay tax nga nekk sénégalais Sénégal droit bi fa nekk le code de la nationalité code du sang la euh, maanaam euh, euh, droit du sang la du droit du sol mhm. maanaam li lay def sénégalais du juddu bi ngay juddu ci suufu sénégal moo def sénégal waaye judd bi ngay judd ci waajur moo xam ndey wala baay bu nekk sénégalais mooy tax nga nekk sénégalais kon droit du sang la du droit du sol kon juddu sénégal ak papa ak yaay boo xam ne duñu sénégalais taxul nga nekk sénégalais Nek fa inspecteur des impôts ba taxaw nan candidat nga taxul nga nek sénégalais bu ngeen seetloo bi élection yi deugmalé 3 mois wala six mois avant sama campagne yëpp dama ko jubal ci ki nga xamné moy amadou Amadou de Bax bu pita danaka ñi ko yàqal ci campagne am ñi ci ëpp doole man ni ci la bok li tax ma jël xex bobu tek ko parce que dama bëgg Sénégal gëm Sénégal Sénégal waruñu koo tek ci loxo ay doxandem Ousmane Sonko bi mu génné kaso conférence de presse bi ñëk def ak Bassirou Diomaye Faye man ba wax naan buñu bami ba layal Amadou Ba mom Ousmane Sonko man mi la doon tot buñu wax ci ki Amadou Ba fi la jàngé Sénégalais la mais Ousmane Sonko loolu mu wax mom xam na ne Amadou Ba juddowul ci réew mi Ousmane Sonko xam na loolu man mi la doon tot Amadou Ba juddowul ci réew mi Amadou Ba guiné la juddoo. ànd papaam ak yaayam ndaw ñu ñëw Sénégal mu màggi Sénégal jàngee Sénégal dugg ci école yi ba tey mu nekk inspecteur des impôts nekk directeur général des impôts nekk fi ministre ba nekk fi premier ministre na léegi président moo ki des mu bëgg ko fokkati mën a ko teg ko fi mën na ko président doo ko fi nekk parce que juddoo woo ci réew mi la ma ca xeex xam ngeen ko yéen ci Amadou Julde Bapita lay ñeele ak Timbi Madina ñaari waajur papaam yi fi ñu ak yaayam fa jóge tam bi Madina ak lay ak lay ñeeleel. mais Imaam. dégg nga Imaam. waaw. Imaam est-ce que war nañ mën a. war a mën a war nañ mën a xoolewaat ba lu mel nii dañu koo xamante ni sokkee koowul. wala bàyyi ko mu daaneel la. waaw amul problème xanaa xanaa ma xanaa ma dee. Mm, ah, ak man ak man xanaa yàlla rey ma mais man tant que maa moom loolu du fi am. dee. Mm-hmm. bis ma dee xëy na yeen sénégalais yi xëy na comme yéen comme yéen mooy garaawul ci yéen mais man loolu dafa garaaw ci man réew mi man Sénégal je au cœur waaw ah, loolu. maam yow Kaylor Kaylor tamit du bàyyi mu sedd moom it. moom tamit du bàyyi mu sedd. exact kon bokk kon mag moom bokk voilà loolu loolu loolu fulla la ñu da ngay fulla am réew kenn am réew kenn du ko asaalu man nag Amadou Ba mii keroog bu mu taxawee télé ba fu malaat naan ko sa ñaareel bi mu naan ko man kan moo la kan moo la wax damaa am ñaareel man benn jabar laa am muy xaw ma diw ak day fen Amadou Ba mii ku mën a nëbbu ñaari jabaram c'est normal mu nëbbu ñaari ñaareel bi c'est normal mu fen ci c'est normal parce que amadou ba leppam ay fen la judduwam nek gi mu nek sénégalais lepp ci ay tapalé lako tek mom amadou ba julde ba nañu wax lan moko def sénégalais comment su fekkante ne sénégalais la nañu wax mom amadou ba certificat de nationalité sénégalaise am naka la ko amee papay amadou ba du sénégalais yaayu amadou ba du sénégalais amadou ba sénégal la lan moko def sénégal su dañu ko naturaliser mu jox ñu dëkk ma bàyyi ko mais Amadou Ba ne Sénégal la juddoo amul juddowul Sénégal registre bi nga xam ne ay ay doomam ca bi doomu Amadou Ba yi nekk génne ko ca état civil ba tëj ko yóbbu ko ci benn coffre tëj ko fa làq ko fa ba ñu am ci ci accès ba gis nañ lépp ba am nañ ci ay copité di xaar Amadou Ba yëngu Amadou Ba ba léegi du ci wax bis bu ci waxee ñu génn suñu preuve teg ci ko taabal ji Amadou Diouldé Ba bii wax naan dafa créer parti politique du fàllu Sénégal parce que du sénégalais